les amis de eSport TV, merci encore les gars de la confiance renouvelée, merci de louer des likes, merci de louer des abonnés, merci également du baïsé, des commentaires. Un plaisir renouvelé, gars. Chaque fois, de partager une information. Hein. Mbokki Sénégalais fait foule maintenant 14 régions du Sénégal. nouveau, wëngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital et ci de février, nous sommes yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak ñi nekk ci kaso yi nga xam aussi erreur judiciaire génne nañu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu sommes suñu borom xare leen àjjana fi daw si gars et te On avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité en continu. Actualité actualité bi gay man ko doon annoncé tay ne Bayern de Munich mën na dajé nga xam moy Liverpool wala boog le Paris Saint-Germain donc c'est le duel épique entre Sadio Kaiser Magnifique Mané et Kylian Mbappé mais également les retrouvailles de la finale de l'année dernière digenté Real ak Liverpool qui di pas madassa Sarr dajé a daje ak Ballo Touré loolu Touré plutôt loolu waxtané ñu mais aussi question mais la day gay moy qui déjà kan la pour ñi ko xam am ñu ko xam mais ban poste lay occupé aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale du Sénégal donc qui kan la ak ban poste lay occupé au niveau de l'équipe nationale du Sénégal gay yi moy laaj bi pendant ce temps également le grand championnat du Sénégal Ligue 1 euh, Ligue 1 sénégalaise ah FC moo avec donc 9 points topp ci Casa Sport Jaraaf AS Speaking, Diambar Stade de Bourse ci Souf, suuf nag Seneb Sonakos ñoo fa nekk Sonacos nga xam amagul défaite ba 4 points rek 4 points donc euh, am ay nul kese en wul euh, but pendant ce temps aussi les retrouvailles entre Zlatan Ibrahimovic et aussi Lionel Messi nga xam ne FC Barcelone les nag ci anniversaire Marco Verratti la hein, donc qui dit Zlatan nga il est fan il est fan de qui dit Lionel Messi tey nag ci ngone gay nak juroom ben juroom ñaari waxtu han ah, ci ngone moy donc tay nek li nga xam juroom waxtu plutôt ci ngone 5h moy nek donc li di publication wu liste bu tité donc le sélectionneur de du Brésil de la Seleção tay lay génne liste vingt six joueurs yi muy yóbbu ca mondial ba ci Qatar Pedri tamit wax na ci li nga xam ne donc mooy relation ak Gavi Gavi ci boppam lañ ko defa ben interview mo ne mom Pedri xaritam la leppam la da koy conseiller da koy japp lu bari ci nga xam moy ci terrain bi motax ñom sen complicité ñom ñaar ñu bari né da leen di fatali nga xam moy mooy Andrés Iniesta ak Xavi Hernandez pendant ce temps aussi qui dit Coman euh, Gavin hein, et parce que mon mot lancé ci li nga xam ne mooy donc ci championnat bi ak ci équipe première bi donc lu bëri jàng na ci nga xam ne mooy Coman donc munul euh, saa su rek dina wéy di remercier Coman parce que lu rëy ah, man moom benn trophée ci situation boo xam ne euh, lu bëri amu fa woon yu bëri amu fa woon yu bëri nekkuñu fa woon donc Coman daal wax par rapport ak li xam ne mooy euh, jaar-jaaram ci FC Barcelone kii nag di Carlos Ancelotti nee na nag ki nga xam ne mooy bii di ñëw lay jàpp ne day joué mais match bi ñu war a amal nii du ko joué ndax ne dafa ressentir douleur te bëgguñu woon jël ay risque ci moom Benzegol mi nga xam ne moom it day bëgg dem ca mondial ba di xaar aussi publication liste bi Jules Koundé aussi moom it jongante bi waram diggante Barça ak Osasuna du joué ndax staff technique bi donc ne nañ ak staff médical bi ne nañ moom dañ koy bàyyi mu noppaliku parce que bëgguñu tamit gaañu gaañoom bi daal di yeewuwaat moo tax moom match bi di ñëw Jules Koundé de jouer avec FC Barcelone centième apparition pour Kidi Nampalis Mendy avec Leicester Nampalis Mendy bi n'a pas pu s'imposer comme titulaire du côté donc de Leicester Leicester bi nga xam tamit mi ngi Nampalis donc qui a fêté sa centième apparition avec donc les bleus et blancs pendant ce temps aussi Kidi Manchester United neuvième match à l'extérieur xam dañ koy ama donc depuis 1989 notamment pour les Mancuniens nga tamit ah hein, gars dañ leena a euh, dóoraat Villa mo leen dor la Ligue des Champions reprend ses droits gars xam ngeen ko huitième de finale Ligue des Champions les plus grands clubs d'Europe ñoo fay dajé daje ñëpp doon xaar nak tirage au sort bi kan lay doon notamment Bayern de Munich kan lay dajé et finalement gars finalement les retrouvailles Bayern de Munich ak euh, ñi di euh, donc Paris Saint-Germain lay doon donc qui di Sadio magnifique Mané contre Mbappé contre Neymar contre également Lionel Messi Neymar xamné xam ne hein, ko nañ ba légui doute paajal bi nga xamné Sadio Mané defoon nako ba di pëtaxoon ci ndox mais aussi ce sera les retrouvailles de la finale perdue par le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich on se rappelle que Kingsley Coman Modou dugaloon but donc Neymar aura cette envie de revanche Sadio a également de bëgg gagner contre Paris Saint-Germain pour Nemi le euh, Bayern de Munich actuellement Gaïa yi au vu des premiers tours équipe est grandissime favori donc 6 victoires moom mooy seule équipe am six victoires am nek deuxième meilleure attaque nek meilleure défense am cinq clean sheet c'est simplement deux buts le Bayern de Munich les bavarois. Mais aussi bis repetita la finale de l'année dernière digunte la Casablanca le Real de Madrid contre Liverpool moi, Amad, donc quart de finale très tôt équipe bu euh, Real de Madrid war que Liverpool donc ce sera Ancelotti face à Jorgen Klopp qui Vinicius Junior Karim Benzegol, Benzema face à Salah et Virgil van Dijk mais aussi l'autre rencontre Manchester City Erling Bro, Haaland et également Christopher Nkunku actuellement le meilleur buteur de la Bundesliga N'Y Dadje, pour quart de finale Ligue des Champions Gaï, Chibi aussi dina neex mais Manchester City est grandissime favori. Le Milan AC aussi qui retrouve Tottenham en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le Milan, le grand Milan espère être de retour. Tottenham avec Antonio Conte, Antonio Conte bi aussi Ramne football italien mais ce sera aussi les retrouvailles de Fodé, Ballo, Touré, l'arrière latéral gauche de, du Milan AC mais aussi de l'équipe nationale du Sénégal. Ballo Touré bi ren match par rapport à parce qu'il a profité de la blessure de Hernandez. Pendant ce temps, il va retrouver Tottenham de Pape Matarsar, PMS qui bi actuellement ba légui permis Dougouti ci terrain en tant que titulaire venant de Antonio Conte et on espère bien entendu que d'ici là pas Matar ça dina wane bopam coupe du monde bi et tout parce que lui c'est un jeune boo tout pour man euh, Tottenham donc Gaï le programme total des quarts de de finale de finale Ligue des Champions bi donc Bruges donc Nidi, Benfica Benfica bi nga donc beaucoup na ci surprise on aura aussi qui euh, dit Inter de Milan contre Porto euh, le donc Chelsea qui va retrouver donc ñi nga moi donc nidi euh, Borussia Dortmund gars c'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir Wailen de like Wailen leen abonné joxe leen seen tirage on avance ensemble Dja ngen, jëf